kon gannaaw ba ñu la delloo nuyoo nuyu mbooloo mi ñuy déglu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ndokkeel mboolem jullit yi gën fee rawite taalibe cheikh ci weer wi ñu nekk di weeru safar te ci fukki fan yaak juróom-ñett la jote woon maqaamam ya xatmi yaak katmi ya dalee ca moom yemit ca moom barzaxul baradix taajul arifina sultaanul awliya way wii nag sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ko taalifee ci biir prison bi biñ ko tëjee ci prison bi la ko way te bokk na ca la ca wax ni dama doon wax sama turandoo rek ni ko yóbbante bi agsi na xaw nag yóbbante bi yóbbante lan la waaye daal wax na loolu moo tax mu tàmbalee way wa na mu ko tàmbalee fa ilayka yabna muhammadin naadaani shiyamun tuxaqiqu jawharal insaani boo koy way noonu nga koy waye waaye boo koy firi comme moom na mu ko firee dafa ni fa ilayka yabna muhammadin naadaani moom mu ni fa naadaani ilayka yabna muhammadin noonu nga koy firee fa da fa naadaani woo na ma xëcc ma jëmalee ma ko ci yow ilayka jëmalee ma ko ci yow yabna muhammadin yow doomu góor gu yàlla gi ñuy wax muhammad li ma xëcc force bi ma xëcc di ma ko jëmee ci yow lan la du campagne buñ ma campagne du luñ ma wax walla ñu waare ma ko mais lu nekk ci yow la di ay qualité nga xam ni sax mën nga ko tuddee ay anti matière ci gën jaa màggi qualité ya nee na ñoo ma ñoddi xëcc ma di ma jëm sile ci yow way woowu maa ngi fàttaliku recevoir nañu bés ak Hadji malik Cissé Jinge ak sëñ Samba Cissé rakam ak président Mbacke Fall bi nekk tribunal procureur ak alxaaji Abdoul Aziz sek yal yàlla dolli ci mom leer ak Serigne Moussa Fall RRA doomu Babacar Fall RRA ca Tivaouane ak Baye Umar Samb yal na yàlla dolli ci mam leer ma nga fa woon bi muy waxtaan nag ñun ba di ñu ñaanal Mbacke Fall procureur di président Mbacke ni ko sëñ bi ndax doo ñu may ndigal ci woy wii nga woy sa turandoo ci prison bi di fa ileeka yab na Mahammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawhara al insaani bu ñu pareetee sunuy awraat ñu boole ko ci sunuy ñaan mu ni ah Maodo si de nee na ma bàyyi Maodo si bu si alxaaji Abdul Aziz radiallahu taala an mu ni Maodo si de nee na ma cheikh alxaaji Abdul Aziz si nee na ko cheikh de bi muy woy woy wii mos na li mag ñi mos keroog lii la ca teg <coughs> daldi di ma ne ko ah ne ko ñoom kay ñoo mos <laughs> waaye yàlla dogal semaine ba ca topp ci ba ñu ba ñu toogee moom noonu ba mu may ñu ca ndigal <coughs> euh, la ma ca gën a frappé bokk na ca ci sunu jotaay boobu moom neex lool it ci man te duma ko fàtte mukk muy ba ñuy tàggatoog moom ba ñu ko ñaanal nu yeesalal nu ñëpp jël seen kurus Baye Omar sàmb jël ko jur ko ni ci ñaari loxoom yi mu tàllal man keroog dama fàtte yóbbu sama kurus mais kurus yëpp ngi ci loxoom ñaari loxoom yi mu tàllal kurus yaa nga fees loxoom muy ñaan di ñaan di ñaan man sama loxo rek laa tàllal si ñëpp seen kurus nga ca loxo mu booleeg tàllal seeni loxo ma jël ma tàllal sama loxo <coughs> waaye la ma ca yéem neex ma mooy dafa ñaan ba ba ba ëf des ci mu wëlbati ko ba jàkkaarloog man wallahi la azim ni ma yow nag ma jox la sa xaas te nga bàyyi xel ci sa bopp ma jox la sa xaas te nga bàyyi xel ci sa bopp ñu ñu fa toogam ñëpp ba mu ñaanee ba ëff des ci man mii la jublu wax lii daal di soog a ëf bi ñu génnee may laaj xaaji Malick Cissé ni ko aw xaas mooy lan mu ne ma mooy lépp rek <laughs> semaine ba ca topp ñu gisee ak sëñ Maodo. mu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu bàyyi Maodo si ci pom bi fekk gise ga la ko waraloon mooy benn góor <clears throat> tabarakala gu ñu dëkkaloon ca amokaat góor gu mag la woon ni bokkul woon nag ci maanaam ci tarixa bi ci beneen tarixa la doon yëngu <clears throat> góor googu wax shérif Ibrahima Aidara ni ko man daal ñemeetuma toog te jëluma tariqa bi ndax dama gént te du benn yoon du ñaaru yoon du ñett yoon te gént gaag mi bëgg sonal Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy radiyallahu taala anhu ni ma jëlal salatul fatih te demal ca Maodo mu jox la ko ñemeetuma toog nag te jëlumu ko noonu Chérif ak ni mu fonke Thierno Bachir ak fa mu ko teg dal di téléphoné na Bachir di ko ko expliquer Chérif dafa tàmbali rek ni ko daal man benn góor daal moo ma ni dafa gént ay yoon gis Cheikh Alhaja mënatul toog yeggalawul rek Thierno Bachir ni ko wax na dëgg yóbbu ko ci Maodo mu jox ko salaatul fatih Thierno Bachir waxanteek Maodo Chérif ñaan Maodo audience keroog ba ñuy dem bésu àjjuma la ñu ngi fekk sëñ Maodo ci pom bi kër papaam mais bokk na ci la ma frappé ca bés boobu sëñ Maodo ngi yàkkamti ñu nit ñu ngi yàkkamti ba may wax naan lii de kenn mësu koo gis fi mu ne sëñ Maodo yàkkamti naa taqalu kook ñun ñu nit yàkkamti ñoo taqali kook moom ndax waxtu jumaa bi jege si <laughs> ma ne lii de kenn mësu koo gis alhamdulilahi rabbil alamina ci loolu bi ko ko shérif nettalee woowat Thierno Bachir joxaat ko sëñ Maodo Cerno Bachir na ko jox ko ko ba mu ko ko joxee nag ba ñuy tàggatoo bay génn maa ngi koy nettali Cerno léegi bi ñu bàyyi Maodo dee gunge ba ci buntu saal bi ma ne ko semaine bii paase sax ñu ngi togg ak Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu muy wax ni fekk Mbàkke di ko ñaan ci fa ilay ka ndigal di woyu mboy turandoom ci prison bi منك مودسي دنيانا ما شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه نهانكو شيخ دبيمي وي لي مصنا لي ماغني مص سيغ مودو تي وات سما لوخو خيتيات ما تي بير مان كين با تي نيك با تي بير بن لال بو ندام غا فمو في لا سام باب تود تي توك في تي دي جانغ وي موي ديغ باي جانغ دي جانغ با ياغ مو جيك بريت ني مودو مانوكو سي مو شيخ مصنا لي ماغني مص mu ne ma fii la ko waxe dëgg la nax way woowu ya ca feeñ te Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu nettali ko ci biir woy bi daga daan daf ko fekke woon ndax mooy bi malaayika yi dee laaj yonent bi ndigal ci salaatul fatiha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boole leen ak cheikh pour mu jox leen ko na mbir ma demee nag sëriñ cheikh daf ko nettale walla ci biir woy bi ndax bi kii yépp génnee rang def sàppe def ay sàppe ci seen diggante sàppe soosu nee na fa la cheikh jiit leeg maamam ni tëll génn doo ko xàmmee nag ak maam ji waaw ndax leeraay bu metti ba ak taar ba ñu àndal te nee na bi ñu laataa génnit bay jaar ci seen diggante mu ne yonent bi solal na ko fa manto moom cheikh mais ñaari yoon la ko ko solal ñaari yoon yooyu nag mu dikkee ni xëj na bu jëkk ba daf ko ko solol mu yem ci mom kep do nat xamna naa yi mel non bu ñaarel ba nak bama ko ko solalaatee lañu ànd génn wata mu ne ko wa alayka burdun qad kasaka muhammadun fil mawqifayn bihi wa fil i'lan te ba ngeen jiitee nak di génn ànd ak samam mu ne serigne cheikh ni turondom wa bi wajhika saafi bi wasfin bahirin umul kitabi bi xattiha nuuraani keroog sa xar kanam ànd ak baca nek ak leer ba ca nekk waaye yaa ngi kaalawoo faatixatul kitaab lañ ko ci sa xar kanam boo xam ni mbindum leer lañ ko bind bi xattihan nuuraan yi ba ñu génnee nag ba jaar ci diggante malayka yi yatalaqanuuna talaqun mooy njàngin moo xam ni làmmin yëngutuwul mais yaa ngi dégg baat yi noonu la yi doon salatul fatiha يتلقن هنا صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرباني بمو جيبي نونا اك ني شيخ جاري سي سين ديغنتك مامام دي لين جوخ نديغل لي كوم نيكو كو مامام جوخلو والحور جيغينو حرل عين يا فخ من بين النوافذ نيغا تي بيرسينو بارنتيرو الجنه يا دي سيتان لولو والحور من بين النوافذ في الحما متفرجات فيك كالولدان يموتا واي ولدان مخلدون يا الجنه صح نانا نيو نيو دي سيطان نونو ملائكه دي جيل صلاه الفاتحه تي شيخ كون صلاه الفاتحه نيون نين كو امي ديكو وير نون لاكو ملائكه يوري وتا سيني هادي توري رضي الله تعالى عنه تي واي ماغي ديغ ونان صلاه الفاتحه كين وير دو لو مل نكا موم ما سمنتبول كو تياخانه ci wala falam ba motax ñok malaayika yi ño bok salatul fatih al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nansir alxaq bilxaq du ñak bu ñu ñaanee sunu kilifa gu tedd ak imam haji Cerno Yero dañu ci indil ay njàng ak yi déggin yo xamni ci katunu yàlla ak mbaaxam daañu xam li ñu am lu mu sëriñ Cheikh it ca waay wa mu ngi ciy feeñal mbégteem ci tudde giñ ko tudde Cheikh turandoom te tudde giñ ko tudde Cheikh turandoom da cee cey dégg ni mu ganee àdduna dafa indaale aw turam daf ko indiwaale waaw moo tax mu ni walaqad wulidtu wali ridan bi wilaadati لبلادتي في منهج التجاني تولي أنني سميت من أمر به فجذا الإله فتن به سماني يعني تشندقلم لو سرين بابا كر جوتي موم لما جير من تدم الشيخ برزاق البرادي اختاج العارفين السلطان الأولياء ولقد ولدت ولي رضا بولادتي لبلادتي في منهج التجاني ولأنني سميت من أمر به فجذ الإله فتى بسماني شوقي إليك حزانة من فضله والشوق عن كل الورى الأغناني خوما نحن يقومكم ديت da yàqu ma تي déet waaye daal bég na daal ci waye nak tuddé ko ko ci ndigalam toog ci ca Tiwaawan lii may netti lu ma fekk la ziar général amone seigne Cheikh seigne Mansour ci salu sëriñ Babacar mam Cheikh Al Hadj Abdoul ñëw radiyallahu taala anhum ci sal ba sëriñ abdoulaziz Al Amin a ngi taxaw. radiyallahu taala man maa nga fa woon keroog ca saalu suñ Babacar lañ doon defe waxtaan mbooloo ma yëpp na ci biti waaye yàlla mayoon na ma daal ci mbaaxam ba dugg naa ci biir maa ngi dend ak góor gu baax xaaji tafsir mbooj bàyyi tafsir mbooj yàlla na yàlla doole ci moom leer ak kii ngërëm maam Abdou di ko nettali bi mu gënee àdduna moom sëñ Cheikh mm-hmm. ba moom mu ñëw di seet si sëñ Babacar mu xamal ko ni ko soxna si am na doom bu góor mu ne ko maam Abdou nee na ma ah, kon day seddu naa nax Mansour maam Cheikh Al Hadji Mansour seddu na ba noppi ndax sëñ Mansour comme am na ko ci topp te góor la kon seddu naa maa ko moom man Abdoul Aziz <coughs> nee na sëñ Babacar ni ah, bu ñu gaawtu nag yëggal nga xool ko. sëñ Cheikh a ngi toog sëñ Mansour a ngi toog sëñ Abdou ngi taxaw ni mm. maa ngi taxaw ma nit maam Abdou dugg nee na maam Abdooy nettali mm-hmm. ma gis ni da nga sa tur maa nga fa woon de sëñ ni ko ba may sàngaat sa manto ba yëg naa ko ngénte loolu booba junni daanaka danga koy xayma ay millions. moom la maam ceenu Saïd Nour génne joxe ko ni maa ko def ci tudd bi gént li radiyallahu taala anhu hmm? Hmm? moo tax woy woowu lu ne ngi ci Serigne Cheikh nag dégg naa ko mu wax ni xatmiya ak mi bi biñ koy jox Cheikh mais hmm. dañ ko ko jëkk proposé kon ñaari maqaama yu bokk. waaw xatmiya mooy mottali gi mu mottali maanaam ni bi nekkee di mottali gi mu mottali mboolem yonent yi mm-hmm. noonu la cheikh def ci mboolem awliyaaw yi firiwul ni beneen wàll du ñëw de mm-hmm. comme na muy firee ni beneen yonent du ñëw ci yonent bi ci cheikh xam nga lu mu ciy firi beneen wàll yi dootu ko féete kaw benn maamam rekk moo koy féete kaw mais kuy wàlli ju bu lay xool day sëgg ci suuf maamam rekk moo ko féete kaw moom lay xool di seen ci kaw barzaqul maktum loolu la ci lu dul ci dul par par loolu dara waaw moom la mooy xat mi xat mi ya tëj googu mu tëj bunt boobu nga xam ne keneen dootu ko rombati. Mhm. di ko féete kaw tiim nañ ñëpp ba noppi ci awliyaawu yi. Mhm. bu dee kat miya nag moom. cëru boppam la boo xam ne ku dul yàlla doo maamam xamoo ko. dul yàlla. kooku moom xat moom cëru boppam la. Mhm. waaw. radiyallahu taala anhu cëru bopam la waaw ku dul yàlla doomaamam xamoo xamola ca cheikh kooku moom cëru bopam la motax mam seigne hadi touré ci way ba ku dib khutbu mba ngay borom yi wilaya ku dib khutbu mba ngay borom yi wilaya Chérif cheikh Tidiane lay tëbbi may sëñ Haadi Ture radiyallahu anhu El Hadj Cheikh Gassama radiyallahu taala anhuma mi tamit ni min azal ba buftadiwal koo fi naw ci cheikh la di duy loosu gaaya mbër ya ñépp la cheikh teg dëggoom ku bañ du ni xuy cheikh Gassama waay loolu waaw min azal la ko tàmbalee ca azal ba keroog buftadiwal ku fi ponkal nga naw ko ci cheikh lay di duy loosu gaaya ñépp la cheikh teg dëggum ku bañ duñu xuy kon nag jaayante ku mel ni ki cheikh jamono ba mu koy way dafa amoon xew-xew bu ca amoon jël tarix bi ba noppi bàyyi ko xewoon na foofa am na xaw ma kan moo ko defoon nati wala ñu ko defoon doon ko bàkkoo cheikh ga sama ne nag jaayante ku mel ni ki cheikh dellu wor li lay ndeyu ay waa ju génn yoon wi la tey dañ ko génne dul lu mu tey kër gi kat boroom dafa fiir jeeg bu jekkiwul du fi sëy <laughs> waaye xaw su yaa di yow ki ñu doy bul nu xool di yaay sunu ndey noo la gëm te doy lu ci yow lépp neex na ñun du fay du fay mukk barzaqul barazix taajul aarifina sultaanul awliyaa <laughs> mhm.